li ma doon bëgg a wax mooy ñi nga xam ne li Serigne Saliou daan wax ne sëriñ Touba daana wax ne lii ma leen digal léeg-léeg bu ma leen digalee lu baax li ma nekk tere leen ak safaan ni ma koy wattandikoo ñu génnee lenn ci téere bi dañuy wax si saytaana day jaar ak ñoom ne leen sëñ bi kat lii mu ñuy digal suñu ko mënoon lu ñuy def ci moom gis nga kàddu googu ci mujjug dunduk sëñ Saliou ci la ko sëñ Saliou feeñale waaye boo xoolee lu ko jiitu ñu bari dañ daan waxee ñu bari rek noonu rek lañ daan wax sëñ bi kay li mu ñuy diggal buñ ko manoon lu ñu wut ci moom loolu waxi seytaane la sëñ bi dañ ko war a roy laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana gis nga yonent bi moo gën ñëpp sëñ borom def na ko def nañu ko royloo sëriñ bi dafa ñëw teg tànkam fa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam di woote ca yoon wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon woote muy siraatal mustaqim bi suñ borom wax ni li moy sama yoon mom la leen digal ngeen top kon deug akum njub nang ci nek buñ ci ragale wet buñ ci bëgg wet la lepp lu ñuy jëf nanu ko yalla dong tax di jëf bu ca leneen ko ndax gis nga sunu mbolo mi limi bari bari bari bari bu suba ci waxtu wi rek bo ñoy do fekkel te kenn ku nekk ci ñun bu mi ñew ci kaw suuf mom dong nga kuñ teg ci ak jaat nga jëm àllaaxira lu gunge ba sori sori sori ci bunt bàmmeel bi fi la ñëpp di yem kenn gëmewa gëma gëmaalewul nit ni bu faatoo ma bu faatoo rekk ma faatu wala buñ ko robee duñ ko rob may na ci kaw suuf mas naa koy nettali am na génn kilifa gu mag ci yoonu murit bi ñu génnee am na ñaar ñoo xam dañoo taxaw ne duñ ko denc mukk ñoom ñu dox ci kaw suuf waaye am na yeneen ñaari kilifa yu gisa fee ne loolu day sarixa nangu ko waaye na ko ana ñoom ñëpp réer ci mbooloo mi kon nag am na loolu kenn ñimewu ko nañ ko bàyyi xel dee lu mat ragal la lu mat bàyyi xel la ndax suñ borom def ne adha wa amar luy jommale dee moo ko gën a jommale luy wex dee moo ko gën a wex adha wa amar luñ ne lii mën naa jommale rek dee moo ko gën a mën a jommale luñ ne lii wex la rek dee moo ko gën a wex te kaddu suñ borom guy dal la de kon lolu julit bu ne bani sahatu mawhiduhum wa saaxatu abdaha wa amar kenn ku ci nek li ngay wax lepp li ngay jëf lepp li ngay melewoo lépp rendiw bi la moy bu sarul teqalikoo ci jëm fofé nak abdaha wa amar kon gai neng nañ ko bàyyi xel ta bañ ko foyé